ñu fi woon ci muy jeex ñu xool liggéey bi saytu ko mais yàlla bu mooy buñ ko saytoo liñ am nañ liñ ko bëggee woon ndax yi dafa bokk si ñun feneen mënoon na koo gañe beneen opérateur te bu ñëwee dina ko def mais tey li moo nekk af moo ko gañe am na machine yi nga xam ne bokkutoon ci programme bi นนี่มุสิมึงทำได้บัจจิกแต่บกชนไม่เอาวจะไม่จำน้องคนนึงก็เชียบโบนะไม่เอาวจะไมเยี่ยมเลยน้องคนนั้นแต่ได้ยินอยู่กูรู้จะเป็นที่คนเดนเดนก็ฟอลวัดตาเนี่ยผมก็จะหุกเลยครับหลัมุมมีแค่ตัวเดียวที่เราชอบุมุมนี้หุกตัวมรันตุ nga làqatu fenn rek di ko joxe ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu kon yaakaar naa ne heure bu ñu jàppee date bi nga xam ne dañ koy joxe pour yaatal ko dinañ la woo yow woo yeneen presse pour mu gën a yaatu loolu nag bu fekkee ne am na ah ndimbal bi nga xam ne moo ci am ba li mën a am ñu ci directeur tey ak ñi nga ndax lii yombul boo xoolee coût bi dafa bëri te am na machine xam ne bokk ci woon mën na ko ko cee def kon moom perte na ci mais nag ko def mooy dañoo signé ak ñoom partenariat loolu la wax léegi ci ginnaaw mu fekk ko fi mais li mu ci doxal moom kenn mosu ko ci sama sans boo xoolee ñun ak 3PT war nañoo formé lu toll juróomi téeméeri nit ci département bu ne dina am téeméeri nit dañ koy door a commencé ñetti yi ñëw ci génn ko bu ñu jógee fii incha allah rabi Koungheul lañ jëm pour def fa lu mel nii li ci jotoon a génn benn li ci jotoon a la ñu ngi ko def minute salaam ñu ngi ko defee minute euh, si ndax jànke lañ ko joxoon jànke ko minute loolu dafa nekk lu rafet ñun ñu ba léegi lépp lu ñu nga xam ne artisan yi dañ ci seen tey centre kii moo ko moomoon euh, chambre de métier moo ko moomoon mais man bu mu ñëwee ba léegi lépp yi ñu formé rek may leen ko ndax comme dañoo nekk chambre ci bu ndaw artisan yi néew doole kenn ku ne booy ñëw li nga koy mooy nan lay bàyyee sama dépense nan lay bàyyee sama nan lay bàyyee sama ba ci coiffeuse yi ñoom ko nañ bi pare ñoom seen président bi ngi dale dama leen ko bàyyee man bu ñëwee ba lépp loolu lay lépp ñu am rek dama leen ko di bàyyee loolu lépp muy am mooy promoteurs yi aussi di soppan am du bon am li ci am nag mooy xoolal technique yëpp sama LG boobu ma am mooy loolu man bu ma ñëwee damay waxtaan ak moom rek moom mooy def lépp kon bu fekkee ne am na ak ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di sant ki ma ko représenté woon mooy suuf moom moo yor commission formation moom moo fi nekk ba formation bi jeex kon kooku ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm daal fi ñu ko defee mooy Karim Diané moo nangu ñu defee ko fi tey mënu lañu ko defee feneen kon loolu def bi ñu ko fi defee gis nañu ñoom ñëpp dara manqué wu kon bu fekkee ne loolu am na vraiment bu sellaay ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñu ngi lay jox dig daje heure bu ñëwee boo koo yaatal dina doon mën am moom dañoo signé woon partenariat ci ay formation ñu ko defal formation yi pare na diplôme yi ñëw na matériel yi ñëw na ñëw na ak moom ba nga xam ne buñ ko yaatalee dañ koy def benn nga xam ne bu ko defee Sénégal yëpp waxuma Kaffrine mais Sénégal yëpp xam ne vraiment artisan Kaffrine yi jàmbaar rek ñu ngi góorgóorlu ci ñun ndax ñun li ñu jàppale ñu ci ñun loolu ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ndax noppul benn yoon man ak yéen seen noppul benn yoon ñu ngi door a jóge ci mbir yàlla mais bu ñu dem rek li ñu tax ñu dem mooy mooy askan wi nga xam ne loolu aussi dañu koy xam ne ñoom fekkee ne docteur am na lu mu ciy wax wala ñett yi am lu mu ciy wax wala recteur am Euh, je vous remercie la question c'est une question très intéressante parce que pour ce qui concerne la formation il avec l'accompagnement du 3FPT on a eu et à, à euh, l'Union nationale de chambre de métier. Donc on a eu, on a vraiment permis à décrocher cette formation suite à un appel à candidature. On avait postulé et on a eu la chance de gagner cette formation. Et c'est une formation de une formation de portugaise, de portugaise à de portugaise à euh, d'archives de hararan, de aussi, etc. Donc, de, marché agricole. cette formation, Alhamdulillah, ça s'est bien déroulé. Parce qu'on a eu vraiment à mobiliser des formateurs de qualité. Et ils ont trouvé en place vraiment des artisans, des maîtres artisans aussi à la hauteur. Vraiment, euh, avec la très bonne volonté de faire cette formation.